ak ñun pour ñu couvrir campagne électorale bi lépp luñu dund ci àll bi dund nañu ko ñun te onkuñu benn yoon ñooñu ñëpp amel nañu leen ngërëm di gërëm bu baax suñu jigéen ñi ak jeunesse bi di ñaaw lu itam bunduxataal bi nga xam ni bunduxataal nañu leen ko jàpp ci ñoo xam ni ñii defuñu woon lu dul feeñal seen metit ak seen naqar ci li nga xam ne lii foqarti nañ ko seen ndam di wax ne am na ba tey ci ñoom ñoo xam ni ñoo ngi ci kaso bi ñuy wax ne ñooñu nañu leen bàyyi ci li mu gën gaawe wax ni itam ci suñu jataay bii suñu mbokk suñu xarit xalifa Ababacar sàll teewu fi ñu ngi wax ci pas-pas ne ñoo ngi egsige ñu libeere ko ci nu mu gën a gaawe di wax ni lépp loo xam ni lii aar suñu démocratie aar suñu réew ba nga xam ni cër bi ko yàlla joxoon ci àddina bi ci wàllu démocratie ak ci wàllu avancement àddina bi yépp nawoon nañ ko te lii xew ci senegal nekk recul bu kenn mënula natt loolu boobu cër suñu réew amaat ko wax ni itam coalition bi mu ngi defar livre blanc boo xam ni dana ci xayma feeñal ci lépp li nga xam ni lii ay ñaawteef la ak ay pexe pour foqar ci nguur gi bañ a def li nga xam ni lii moom la askan wi bëgg di wax ne daal ñoo ngi yeesal suñu pas-pas di yeesal suñu taxawaay lépp loo xam ne lii laaj na ko pour que volonté changement bi peuple sénégalais bi am te exprimer ko ñu taxawu ko démocratie bi itam ñu taxawu ko ba dara bañ cee xajam loolu moo doon sababu jataay bi di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay jërë ngeen jëf